bi nee na ab avocat ma ma ngi alerté yéen gi du ñu xëy fekk fa Mame Boye Diao mi nga xam ne ber na listu boppam ca diwaanu Kolda nee na nag listu boobu nga xamante ni daal maanaam daan na koy taxawal lépp lu ko saman di fekk ko assumer te amul lenn loo xam ne dina tax mu daal di say teltu ginnaaw yéen a kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi am na ay communes yoo xam ne ci diwaanu Mbour ñoom dañu leen fa rëkkale fu ci mel ni a kaay li nga ne mooy cachet yu coalition Yewwi Askan Wi yéen a kaay gi da la témoin nee nag mbir mi dina neex lool ci maire bu Sandiara ndax nag amul adversaire ndax liste yi nga xam ne ñoo fa nekkoon liste yooyu dañu leen a rëkkale yéen a kaay gi di direct news nee na Abdoulaye Baldé jamono ji nak lan lay joué ndax gis nañ ne moom Baldé sa diwaanu Ziguinchor dafa jàmmarloo ak benn bokk yaakaar ca diwaanu Saint-Louis ñu gis ko fa moom Abdoulaye Baldé ay ñoñam di jàppale Mansour Faye yéen a kaay gi di la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar bëri na ay gox yoo xamante ni ci danger la fa nekk na fu ci mel ni Ndakaaru ak Ziguinchor ak Kaolack Saint-Louis ba ci Jolof yéenekaay gi nee na vote sanction yi ci biir Benno Bokk Yaakaar dina bëri lool ci yenn gox yi journal bi di Source A xëy duñu xibaar nan ñu Ousmane Sonko nag dana dem fa mbaxana doone benn ci mboolem ñi nga xam ne ay membre Pastef lañu def yëfu traître ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak liste yi nga xam ne moom lañ leen dénkoon yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na nag biir Benno Bokk Yaakaar bëri na ay liste parallèle yoo xam ne mën naa gàllankoor Benno Bokk Yaakaar yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Pastef Grand Yoff ñoom nag génn nañu ci coalition Yewwi Askan Wi ba pare taxawal seenub liste yéene kaay gi nee na mortal combat ci diwaanu Ndakaaru diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Barthélémy Dias yéene kaay gi di 24 heures nee na Dame Diop ca diwaanu Diourbel moom la ñu jiital waaye nag loolee ndax du pari risque yéene kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu ginnaaw bi ñu déposé liste yi ba pare waxtu lijjanti wi nag ak jafe-jafe yi fi la ñu toll yéene kaay gi nee na ñi nga xamante ne ñooy opposition bi dañoo tas tasar te baaxul ci ñooma yéene kaay gi dale ko naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru jamono ji bëri na ci ay gox yoo xam ne dafa tas tasara am na benn réunion boo xam ne ay pro Ousmane Sonko ak xalifa Sall ñoo ko doon amal ngir nag li jëndi seeni i jafe-jafe waaye nag si saagantey nday fa la mujj yéen kaay gi nee na Pastef Ndakaaru ak taxawu jamono ji ci guerre la ñu nekk ci gran Yoff ak ci Point E yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu taximan bi nga xam ne moo fiiroon ab gendarme ci autoroute bi mu ñàkk bakkanam taximan boobee nag atte nañu ko benn weeru kaso la ñu ko tëj yéen kaay di libération xëy dañu xibaar nan ñu ñàkku ndox gu métte te jamono ji nag moo nar a am la ko waral nag bokk na ci usine bu kër Momar Sarr moo taxawaay yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar nañu ñu ni ki démb ca tribunalum Ndakaaru atte nañu fan mbir mu doy waar a doy waar maanaam mooy ñi nga xam ne dañuy cagatu di jaay seen bopp te di ko jaarale ci xarala yu yees yi ci internet bi am na ñaari jigéen ñoo xam ne dañu leen a teg loxo ak benn élève boo xam ne moo leen doon publicité la ci Facebook bi ñoom ñett ñëpp atte nañu leen ci tribunalum Ndakaaru benn xale bu jigéen bi nag moom bi ñu ko laajee nee na dafa sëy ba tas am na lu toll si ñetti dooma amul lu mu leen dundulee loolee moo tax maanaam mu doon cagatu bi ñu ko laajee nee na am na carnet sanitaire waaye policiers yi ñoo ko jëla beneen xale bu jigéen bi moom bi ñu ko laajee daan nay wax ne inscrit na ci fiche sanitaire bi am na lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay numéro téléphone ay jafe-jafe moo ko ci dugal xale bu góor bi nag di élève bi nga xam ne moo leen doon publicité la moom nag nee na daal leen doon jàppale ñoom ñett ñëpp nag tëj nañ leen lu toll ci fukk ak juróom ci ay yéen kaay gi dee sat xëy